Aziz. Eh, jërëjëf doyen eh, eh, ni mu ko waxee donc tey dañ ñëwoon Ndiassane ziar si le xalif général de Ndiassane ci turu directeur général de la poste Mouhamadou Diaité comme ni ko poste amee habitude di defee ci gàmm gu nekk donc ci tànk yooyu lañ ñëw tey Ndiassane ngir tànki ziar ziar la xalif général. ndokkeel ko ci bés bi nga bés bi nga xam ne ne ñu ngi ci célébrer suñ yonent le prophète Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam poste nag comme ni ma ko waxee am na habitude donc euh, di teew ci bés bi di ñëw di ndokkeel si euh, sëñ bi di ko ziyaar di nemmeeku waale njabootam euh, kontaan nañ trop ci nit ñu recevoir tey fii ci Ndiassane donc porte parole xalif bi recevoir ñu xalif bi amoon ay yitte euh, tatagal ñu teral ñu vraiment aussi délivrer ay kàddu yu yu yu yu am yaakaar ñu ngi koy remercier ci accueil bi ak njabootam yëpp euh, di ko sant di ko gërëm di dolli ziar gi ci xalif général tànk yi nag comme ni ma ko waxee tànk yoo xam ne ne am nañ habitude di ko def donc poste xam ngeen ko muy euh, société nationale euh, La Poste muy entité bu mag ci réew mi am habitude ci événement yu mel nii di ñëw di ndokkeel xalif généraux yi boole ci aussi di wone taxawaay bi nga xam ne ne am nañ ko ci événement yi ak en dehors des événements comme ni ngeen ko xamee poste donc au niveau de Ndiassane am nañ fi un bureau de poste mi nga xam ne romb nañ ko léegi gis nañ ko ñuy def seen transaction actuellement ñu ngi nekk ci bourse de sécurité familiale yi xam nañ ci période gàmmu bi euh, euh, nit ñi soxla nañ ko euh, vraiment muy doon taxawaay poste am à Ndiassane taxawaay bu am solo depuis plusieurs années donc taxawaay boobu ñu dolli di ko gën a renforcer di ko gën a taxawu parce que ni ko sëñ bi waxee léegi askan gi soxla na ko donc ci tànk yooyu la ñu nekk vraiment pour woon sëñ bi daal poste dina yokk taxawaayam fii ci Ndiassane ngir assister population yi et aussi équipe yëpp yi nga xam ne ñu ngi fiy liggéey muy équipe bi nekk ci bureau de poste bi muy équipe direction régionale bi donc coordonné par le directeur régional euh, euh, Pape Hadj ak le directeur commercial commercial Abdou Aziz Seck vraiment euh, ñu ngi leen di féliciter aussi di leen encourager ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne am nañ ko ci événement bi tey. waaw wax naa ko léegi fii ci Ndiassane dañ fi am taxawaay bu rafet. yàlla def itam euh, ci njabootu euh, sëñ bi mu am ci ndaw gu am Pastef gu am maanaa muy sox Maam Penda Kunta di euh, bokk ci njaboot gi yàlla def mu jiite service bi di ko doxal doxalin gu rafet macha allah te ñi ma lim léegi muy ay supérieur am muy directeur régional Pape Aaj muy directeur commercial Abdou Aziz Seck vraiment kontaan lool ci ni nga xam ne ne mu ngi koy doxalee liggéey bi loolu itam mu doon vraiment loo xam ne ne dafa ñëw yokk ñun ci suñu contentement ci ñëw fii ci Ndiassane. mu ngi lay nuyu xalifa di nuyu xalif général cheikh bu Sidi Mokhtar Kunta di ñaan yàlla yàlla guddal fanam defal ko wér ba nga xam ni naal yi mu naal. yàlla may ko mu eggale ko ak sago ba naal yeneen naal euh, Mouhamadou Diéyité nag directeur général de la poste bi nu fi yabalee mi ngi jël délégation bi ki ko jiite mooy sëñ Abdoulaye Ndiaye di conseil spécial noonu nekk sa wet ànd ak Abdou Aziz Diallo muy directeur général poste finance ànd ak Abdou Aziz Seck di directeur commercial marketing bu pos ànd ak Pape Aj moom mooy directeur régional dakaar Thiès ak Louga et sëñ bi dakaar amoon na directeur régional Thiès mi amoon na ko Louga amoon na ko waaye jeyite bi mu ñëwee ci organisation bi mu def dafa boole direction régionale yooyu ñu dénk ko xale bi ñuy wax Pape Aj bi ñu ñëwee nag nu fekk fii Faye laal du waa Thiès directeur régional bi mi ngi nii toog adjoint di jaw ànd ak chef de centre ànd ak jigéen ñu baax ñi nga xam ni eh, ñoom it ñoo nga à la direction régional de Thiès di la indil nag sëñ bi nuyoo directeur général et di la ñaanal yàlla yow mi xalifa Kunta ahlul kuntu yëpp yàlla yàggal leen fi yàlla defal leen wér ba naal yi ñu naal ngeen eggale ko ak jàmm ak salaam ah sunu bunt nag fii ci Njaasaan Abdoul Ahad wax na ko léegi mooy Cheikh Abdourahmane Kunta ànd ak soxnaam bi di Maam Penda Kunta ci njaboot gi la bokk doom la fi rakk la fi lépp la fi waaye nag bokk ñun ndax aujourd'hui ñoo bokk entité bi nga xam ne ñoo fa bokk di fa yëngatu muy poste et wax naa ko léegi ci kanamu mbooloo mi moom mii kayit bi ko dugal poste man mii maa ko indi jox ko ci loxoy tedd waajuram bi waaye boobu ak léegi ñoo ngi lay seedeel kunta ni la xale bu am jom la ñu gis xale bu am pasteef bu nangu liggéey nangu kilifteef moo waral kii nga xam ni moo doon receveur chef de poste Ndiassane muy Assane Sène bi mu retraité rek ay kilifaam ràññee ko jël ko dénk ko bureau de poste boobu alhamdulilahi rabbil alamin boobu ak léegi ñu on a une satisfaction totale mi ngi koy doxal ci nu mu gën a rafete yor ci fulla ak fayda kuñ dugg si léegi Ndiassane ba gis ne bureau bi mel ci paiement de bourse familiale la nga xam ne àdduna yëpp ñoo ngi fa daje macha allah ba nu digmalee gàmmu gi ak léegi xale bi mu ngi ciy def liggéey bu am solo et kon ñoo ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla lafal ko cot liggéeyu xaalis dafa metti dafa jafe su rawatina nag muy xaleel rawatina di jigéen mais da ñoo koy ñoo ngi leen koy sereel ni liggéeyam rafet na loolu ah sëñ bi poste nag xam naa ni booy suivre un peu actualité di nga gis ni temps yi ci ginnaaw yëpp ñoo ko occupé ci ay jafe-jafe ci ay tolof tolof yoo xam ni daal eh, vraiment kër gi mi ngi koy traversé kii nag nga xam ni moo ko jiitee mooy Mouhamadou Diayité moom de inspecteur des impôts et domaines la bi nga xamee ni kër gi nekk na ci ay tolof tolof nekk ci ay jafe-jafe président moo ko dem jëli ji à la direction des impôts et domaines ni ko gis naa sa tolluwaay. kon kër googu nga xam ni am na jafe-jafe muy poste am na ay yaakaar ni bu ma la fa yóbboo jafe-jafe yooyu fa nekk boo àndee ak postier yi am naa yaakaar ni di nga ci mën indi ay solution et eh, ñoo ngi lay seereel li boobu léegi si loolu la nekk ndax ñëw bii nu ñëw tey moom dafa nekkoon bitim réew moo woo Abdoul Aziz Seck bii di directeur commercial samedi ni ko Njaasaan foog nu egg fa ndax falaa bokk am naa fa ay mbokk bi nu toogee ba biig ci guddi booru 23h far nu am benn réunion bu am solo à la présidence loolu moo tax ñëwul mais yéeneem moo doon ñëw fii ànd ak ñun moom miim déyéen moo ko soññ Abdou Aziz bii ne ko Njaasaan foog ñu dem ci et kon sëñ bi ñëw bi ñëw ziar la ak sàkku ñaan ziar la ci biis bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk seen bis la waaye rasulullah ñun ñëpp ñoo ngi ci biir kon ñaan yi nag ñaan yàlla wax naa loolu léegi kër gi de mi ngi ci jafe-jafe yu metti waaye am nañ ci yaakaar ndax wax naa ko léegi ahlul kunti yu fu nu dugg di fa laal seen loxo di fa jël seen wërsëg ah am na nu yaakaar ni dana dana dana sooxe nii rek waaye du egg suuf fii nag am nañ fi yaakaar kunta kër gi bu ngeen ko ñaanee seen darajay maam rasulullahi a ah, mën na am de yii dañ koy dégg mais du nu gis mukk fu mu daanoo am nañ ci yaakaar ñoo ngi lay tàllal suñu loxo kunta nga ñaanal yàlla pos yàlla teel ko boppam yàlla def fa ay sutura yàlla def fa ay xéewal ba waxuma ñun yeneen génération waxuma maam Penda yeneen parce que nag poste ñun ñëpp moo fi jiitu c'est l'une des première administrations de ce pays là ca temps wu OPT ca temps wu PTT lu yàgg la diggante Njaasaan bi ak Tiwaawan ak yooyu ku fay wax waxu poste ñoom daan ko xam nag lu fi yàgg la cosaan la ñun suñu ay waajur waajur liggéey nañ fi kon ñun ñoo ñoo ngi ñoon yàlla waxuma sax ñun waaye suñuy doom suñuy sët suñuy sëtaati sët liggéey fi eh, wax yi nag du gudd kunta eh, waxu li ma ko wax rek waxu siyaar rek la ñoo bokk yow bis bi eh, bokk ko genn tàllal suñu loxo ngeen ñaanal Eh, ñaanal directeur général la poste moom it yàlla may ko wér may ko confiance bi nga xam ne président am na ko te bokkul ci wax naa ko léegi du postier inspecteur des impôts domaine la mais confiance boobu nga xam ne président am na ko ba indi ko teg ko ci kanamu postier yi ah boobu boobu confiance yàlla bu mu nul eh, yaakaar boobu ci président am ba teg ko fi postier yi aussi am nga ci moom Eh, boobu yaakaar yàlla na ñun ñëpp yàlla may nu dund ba teg ci suñuy bët yàlla def fi ay xéwal yaatu yaatu yaatu eh, kunta kàddu yooyu rek la nu woon nu yëkkati eh, di nuyu ñëpp di ziar ñëpp kii nag sëñ Abdoulaat joxoon ma ko sëñ bi ah. yàlla ma nga kunta ñoo ko ñoo ko ziaree ci biis bi ñoo ko ziaree ci biis bi di ñaan yàlla xalif bi yàlla yàggal ko fi yàlla defal ko wér defal ko ahlul kuntu yëpp asalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf kon ñu maase déglu rek incha allah rabbi sëriñ xalifa kunta porte parole xalifa général bu njaasaan ñun ñëpp ñu maase ko déglu mu tontu waa poste salaamaaleykum mbooloo mi sëriñ bi nee ñu ngi leen di dalal ci kër rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci suuf su barkeel mu nekk suuf soo xam ne lépp lu fi waay ji ci yéene bu rafet sunu borom wan la ko ci saase ci kàddu xalifa général des cadres ayadahu llahu wa nasra yàlla ko fi yàlla gën a bàyyi te dimbali ko wéral ko ba yéeneem ci réew mi yéeneem ci diine ji yàlla sunu boroom mottali ko ndax ku mag ci sëtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yi mag ci ahlul kunti yu nag la yaakaar yam kon ñun sénégalais yi inaani limité ñaanal jëmm jooju ndax sunu boroom kat bàyyi ko fi ndax gëm nañ ni bokk na ci jëmm yi nga xam ne sunu borom dana la rus fii ci suuf kon boo leen ñëwee ziar si ko fekk fi ñun ñii moom mi nga xam ni moom la xalifa bi dënk kàddoom kii di doomu xalifa bi di seexal bekaay di jëwrinu kër gi day mel ni lépp mat na kon lu mu xat xat xat xat nit doo weddi sa bopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu ku gëm ni yàlla kenn la gëm ni bisu penc dana am na nga teral sa gan teraanga gan nag du jox mu lekk ak naan rek da cee bokk dëgg dëgg teraanga gan mooy lii gan fekk la ci ay xat-xat wala mu fekk la ci tiis wala mu fekk la ci jamono ju jafe wala mu fekk la ci jamono ju jafe nga bàyyi lépp ñëw jàkkaarloog moom te yàkkamtiwoo mu dem loolu moo nekk lu njëkk ci teraanga gan te loolu la ko maamam digal. ñu nit loolu la lu xalifa bi digal ñu ngi leen di wax yéen waa poste ñëw ngeen seen kër Mouhamadou Diayte directeur général yàlla na ko yàlla dimbali ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dani innamal amalu wa innama li kulli imriin maa nawa jëf yëpp dafa nekk ci yéene. yàlla du fay jëf bàyyi yéene ndax jëf lu mu rafet rafet rafet bu koy yéene ju sellu lay taayut yàlla du ko gis waaye nit bu amee yéene te yéene ja dëggu ni damaa bëgg a dem Njaasaan ndokkeeli leen ci seen bisu maam ji te yàlla dogalu ko day mel ni moom Mohamed Dité teew na ndax la ne ca xol ya yàlla rek ko xam waaye Seyduna Muhammad lépp looy jëm ci moom na yéene ja rafet ndax njaasaan kat su fekkente ni ci wàllu dëkk ñu naan dëkku tariqa moom la yàlla njëkk a samp ci réew mi ndax dara nag du hasard ndax ñooy sëtu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñi bokkal diine ji orma gu mat sëkk dox seen diggante ak ñoom muy ak mbokkoo ak cofeel ak bokk pas-pas ba tax na réew mii képp koy dégg ñu ne benn taalub diine yàlla dogal na ni wàcc na njaasaan saa fonteeg borom njaasaan kon borom njaasaan moomu buy wàjjal guddug maamam ku am dara ci seetlu da nga njëkkante ngir rot fa kon Mouhamed Diété yàlla ko yàlla fay jot amut jour ouvrable fonctionnaire bu bayi bureau dem béréb fa muy dem ñor na ko kon nag ziar du dara lu dul fajug aajo rek rawatina nag ziar boo xam ni un pierre deux coups mooy ñëw ndokkeel waa kër Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci seen bisu maam waaye nag ñëw ngir cofeel gi julit yëpp am ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te guddi yii ak yi ko weesu ak yii ñëw kenn rek la yàlla rus ba ku mu rus yàlla fay la yàlla faj la yàlla fajal sa aajo mooy Seyduna Muhammad dara yamut ak moom kon lu nit di woote ci réew mii muy guddi gàmm ahlul kunti yu nga ko defal ndax ñooy sëtu yenent bi ñoom la yenent bi wax ni na ngeen leen ormaal ngir sama jëmm gàmm yàllaa ko njëkk a defal sayduna muhammad ndax watu asiruhu watu waqiruhu watu sabixu bukratan wa asila nit nit mënagul def orma jooju màggal jooju jëmale ko ci rasulillahi kon yàlla rek la ñuy roy ci cofeelam ci seyduna muhammad seriñ bi mi ngi leen di sant bu baax boo leen demee ngeen santal ko directeur général poste sunu moomeel la poste ñun sénégalais yi buñ xamoon importance bi ñun ñëpp a war a téye ngir poste jëm kanam boo xoolee jafe-jafe yi poste yi dund méritoowul ko poste bépp sénégalais sa moomeel la ndax mooy mooy moomeelu réew mi te bu dul dara ñun waa Sénégal bu dee ay julit lan war ñoo sàmm kóllëre bi dara amagut transfert amut téléphone amut télégramme bëreegut benn moyen rek lan amoon mooy post kon nag yàlla na yàlla dimbali poste moom jëmm jooju di poste postu jëmm la boo xam ni daa bokk ci république bi bokk ci sook lu république bi kon Mouhamed Diété fi mu bëgg a yóbbu yàlla rek a mën a kàttanal yàlla na ko yàlla kàttanal sëñ bi nag di leen sant bu baax di leen yóbbante ci moom it ci njabootam sëriñ bi nee na ko. seexal xalifa man soxloo ma dara li ma bëgg lépp mooy yàlla suñu borom defal na ma ko mooy imaan gi ne ci man lay ñaan yàlla teel ma ko sama cofeel ci Seyduna Muhammad may xëy di ko roy doy na ma sëkk waaye njaboot gi nag sëriñ bi nee na nañ ko bàyyil xel njaboot gi na ko directeur général bàyyil xel njaboot gi borom kër ci njabootam rek moo ko tee nelaw te bu sañoon bépp njabootam am foo yaxantoo ndax nga am looy suturloo ngir nga mën a ñoŋal sa diine rawale nag sa ngor mu ngi leen di dénk mam penda kunta mi ndax mam penda doomam la sëriñ alaaj mam bu magam la toogaay alaaj mam bu mooy toogaay mot gi yëpp benn la ni Mame Penda mii doonee doomi alaaj Maam bu noonu la doonee Cheikh bu Sidi Muxtaar mi doomam la te gii ngeen ko teg Njaasaan mu remplacer Assane xam nañ ni matewu ko xale la jigéen la jàppale ngeen ko ba mu mën a def résultat jàppale googu nag la leen di ñaan lu mënta xew ngeen bàyyil ko ko fi rek xam na dëkk bi dëkk bi day dëkk daara dëkk bi day dëkku diine Mame Penda mii mu bokk ci askan wi bokk ci ndonali kilifa gu fa dem xam na nu muy traité ak yow ba sa aaja faju loolu ñaanuk sëriñ bi la li ci des nag mooy ñaan goo xam ni yéen ñi ñëw ñëpp mi ngi leen koy jagleel muy promotion ci seen wàllu liggéey akuk jot seenuk sàkkuteef bu kawee seen jort beneen ñaan gi nag directeur général Mamadou Dieyte yàlla na ko yàlla dimbali ba li ko président dénk mu def ci lu kawee njortu président ndax bu boobaa du président la ko defal de ñun sénégalais yi la ko defal wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh